léegi bu koy nekkee ca taax ya mees na koy defal la yelloog dundub waa taax ña bu koy nekkee ca àll ba ñu defal ko dundub la tolloog waa àll ba buñ bokkee nekk ci benn dëkk te koy bokk ci famille bu tedd bu ñu ormaal mën na koy defal lu tolloog moroom yi ñu ormaal lañ leen defal te ka nga xam ne nag moom bokkul ci famille booba ñu defal ko la tolloog rek famille bam yemal nga xam ne kon wàllu dund beeg koddaay li moom am na jàpp ni ci kenn ku ne ñu seet la tolloog dara jaam ñu ko koy defal li nga xam nag moom ci la ñëpp war a yemoo moom lay bëgg a wax muy wafi wafil ma biiti ca panaan ma moom dañ caa war a yemoo ba falaa yadxulu du sañ a dugg li xaajati yi ngir aajoom xinda man fa ka nga xam ne lam takkun amut nawbatuha ayam nga wala lam takkun nekkut nawbatuha ayam nga wa innama yatlubuha naka dana ko sàkku min xaarijil bayti ci bitti néeba ñoom ñëpp nañoo war a yemoo ci nekk kee guddeeg bëccëg jàll nekk kee guddeeg bëccëg bu dee niñu aadawoo fii nga xam ne ku nekk day am néegam nga am sa néeg itam ka aaye moom nga xam ne yow mi jëkkëram moo la aaye woo tey moom rek nga saña joteel moom rek nga saña féeteel ci bis boobu nga xam ne ka aayewut boo soxlaa ci moom dara doo dugg ci biir néegam da ngay taxaw ci buntu ba laaj la nga soxla boo soxlaa wax ak moom wax ak moom booy bu dee looy laaj mu jox la ko waaye doo sañ a dugg ca nekk ka aayewut wal xas mu séddale ga bi yow mi nekk na ci ab bëccëg wala lit ak genn guddi nee na nag bu fekkee dañoo bokk nekk ci benn béréb moom séetle bi nii lay demee guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg waaye doo def fee ñaari fan wala ñett door a jàll fee lu may ñoom ñoo ci bokk ànd ñoom jigéen ña moo di wala yàq si mu du séddale bi yow may ni ci ñaari fan illaa bi ridahunna dara ci seen ngërëm buñ bokkee nekk ci benn béréb moom da nga yemale rek ci guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg waaye doone daay def fee ñaari fan dem def fee ñaari fan dem def fee ñaari fan déedéet bu fekkee dañoo soree nag moom mën ngaa seet nu mu jàppandee rek bu dee dem fee am fa ay bis ñëw fi am fa ay bis moo jàppandi ci yow baax na bu dee nga yóbbu fa ngay liggéeyee kenn ma am fa juróom-benn weer delloosi ko ci béréb bi yóbbuwaat kenn ma am fa juróom-benn weer loolu moom baax na ñu fàttalee ne am na yaar yoo xam ne buñ la ne faaw nga yemal leen ci mooy bëgg ca xol ba ak jote ga ca sawukaay ba jote ci sawukaay bi moom kem nam saware ak na yaramam demee rek noona baax na la ñu bañ rek mooy bu ki aayee mu bañ joteeg moom ngir bëgg bu àggee ci kam nga xam ne moom la gën a bëgg ci la xolam nekk moom mu am cawarte bu baax loolu rek mooy aaye waaye bu loolu rek moom ku aaye rek ci wàllu jote ga lu mën rek baax na te it niñ ko waxee woon léegi kee tawat mbaa kee toll ci gis baax ba ni sojotee ak moom du tey rek faaw bu aayee mu war a nekk ak moom guddeeg bëccëgam moomale ko ko du wax ne rek kee daa toll ci am doom toll ci am deret wasin mbaa mbërëg mbaa tawat du tey rek moom bu aayee rek mu moomale ko ay ga loolu mooy atte ba kon bu alxuraan ne walan tastatiyon an taajiloo bayna nisaay walaw xarastum du ngeen mën a yemale seeni soxna ak leen ko bëgg-bëgg ak leen ci xër-xër loola ci mbëggeelu xol baa tax mu wax ndax du digle dara ba noppi buti ko ne mënu leen ko loolu mënta am la nga mën lañ la wax nga yemale ca mooy dund baag koddaay laag nekk ga la mën ko yemoon nag moom des lu ca wax dara muy bëgg ci xol baag lu demee noona faidataal yi lii yaar njariñ la ak ulaa ba jëkk laa yusi bu du sañ a joteeg arrajulu góor ga zawjataxoo soxnaam aw amataxoo wala jébéeram wa ma xawata fekk mu ànd ak moom ahadun kenn fil bayti ci néeba kaana moo xam nekk na saxiiran di gone aw kabiran wala muy mag yàqu zaana muy aji yeewu aw naiman wala muy aji nelaw bokk na ci li ñuy aaye nit di jotee soxnaam jote góor ak jigéen te fekk na am na keneen ku nekk ci néeba bu keneen nekkee ci néeba di mag moo xam ne nelawut kon jote ngaa soxnaam te kooku nekk fa day araam bu fekkee ka fa nekk nag day nelaw mbaa muy gone nag ñu sib ko rek yam ci wa tax mu naa fa yukrahu maxa naaimi wa saxiiri wa yumnaahu maxa al yaqzaani al kabir attaniyatu ñaareel bi yukrahu def na sib an yubaajihahunna mu tëgganteeg ñoom fi firaasin cib lal waaxin bu di benn waxile waxees na ne yaxrumu dana araam maanaam moom jëkkër ji mu boole ñaari soxnaam mbaalu ko ëpp tëdd ak ñoom ci benn lal jote nga waxuñu ko moom daañu ko leeral léegi waaye tëdd ko kese rek bokk ñoom tëdd ñoom rek ci benn lal loolu dañ koy aaye am nañu ne sib la am nañu ne ak araam la waxtu di fa wuuteef na fii jabil imaa yi ca boole jébéer ya fa xile waxees na ne yee joos na na dagan waxile waxees na ne laaye joos na dagan waxile waxees na ne yukrahu def na ko sipp jamono yi jaam yu jigéen amee boo ci amee lu mat ñaar mbaa ñett nag nga boole leen tëddanoog ñoom ci benn lal jote nga waxuñu ko moom waaye nga boole leen tëdd ñoom ci benn lal am na ñu ne moom des ko yemaleeg soxna ya moom dagan na am ñu ne déedéet moom it daganut am ñu ne moom it dañ koo sib moo tax mu teg ci haza lii lépp nag fil mubaajahati nekk na ci tëddan tega muy bokk tëdd rek wa amma watu ihdaahunna ndaal laal kenn ci ñoom bi maxdaril uxra ci teew ka ca des fala yajuusu du dagan ittifaaqan ci dëppoo ñëpp yi mu lay wax lépp nee na bokk rek tëddandoog ñoom ci la ñuy wax wuute yooyu ak coow yu bari yooyu waaye di joteekee te moroom mu teew fa ëpp naa def loolu moom daa araam kenn kenn sañu ko wa haza lii aaxiru maa mooy mujjug la nga xam ne arat naa namoon nanu jam xaxu ak booleem min masaa'ili nikaax ci masalay sëy nee na lii la bëgg a wax nag ci lu aju ci masalam takk soxna mu ñëw nag ci mbirum tekki ga tekki ga mooy fase wa am nag talaaxu ndaal fase fa huwa moom ma xooful luñ jàppe la min xawlika ci sa wax ja atlaqtu boyal naa annaaxata naaga ga fan talaqat te mu boy ida arsaltaha ndem boyal nga ko min xiqaalin tukkee ci rat rat aw xay niwal ab tënk nga xam ne fa kullu daati zawjin jépp jigéen ju di boroom jëkkër rek moo saqatul ku ñu yeew la inda zawjiha fa jëkkëram ja fa isa faaraqaha ndem teqalikoo naang moom rek atlaqaha kon boyal na ko min wasaaq yi ca yeewam nga ne na baatu talaaxu daa bàyyi ko ci biñ ma saa yeew gëleem ci rat wala ci tënk ba noppi nag yeewi ko libéré ko mu dem loolu loolu woon cosaanu baat boobu jigéen tam bu nekkee ci buumu sëy góor day mel nañ ko yeew ci buumu sëy ga suñ ko fasee day mel ne kon yeewi nañ ko libéré nañ ko kon maanaam woon ci cosaan ak maanaam miñ ko jëmale ci wàllu fase nuroo nañu wat talaaxu kon nag talaaxu luxatan ci làngu arab ak inqitaaxu moo di ak dog wala dahaabu ak dem was ci laaxan bu dee ci dëppoog ñu dégg fiq xalul xismati mooy fecci boomug sëy ga al mun xaqidati ga di aji fasu bay nas saw jëy ni diggante jëkkër ak jabar kon nee na dangay wax baatu talaaq bu dee ci làngu arab rek moom dem rek lay firi muy départ mbaa lu ñu yeewoon libéré ko mu dem bu dee ñi ko ñu dégg fiq di waxee nag moom buñ ko waxee ñu ci jublu bu mu séega doxoon diggante jëkkër ak jabar ñu dindi ko mu deñ mooy góor ga nga xam ne moo ko sañ a def mooy moo ko sañ a dindi dindi ko mu deñ wa haza li amru mbir la jaxalahoo moom def na ko allahu yàlla taala kawe na bi aydil aswaaji ci loxoy jëkkër ya duuna zawjaati ci lu dul soxna ya mbirum passé mii nag nee na yàlla mi dogal moo ko moomale jëkkër ja jëkkër ji moo sañ a fase waaye jigéen ji moom sañuta fase boppam bu mu séega ma nga ca loxol jëkkër ji waaye nekkul ca loxol soxna sax waxoo moom fase xalaaqis may li nekk na ci ñaari xaaj mu baaxun benn ba mooy bu ñu daganal waxoo te moom talaaqu sunnati mooy pasem sunna wa mbaax vérun ak mu ñu tere waxoo te moom talaaqul bidaxati mooy pasem bidaa waxoo moom pasem bidaa nag ak talaaqu mooy fase salaasa ñett fi kalimatin ci baat waahidatin bu di benn nee na fase ñaari xaaj la fase moo xam ne moom lañ tàmm booy def defe na te mooy pasem sunna ak pase moo xam ne pasem bidaa la taamuñ ku ko def te bokk na ca nag jekki-jekki fase soxna ci benn baat ni ki jekki-jekki ne ko fase naa la pase mu dog mbaa jekki-jekki ne ko fase naa la ñetti buum li gën gàtt rek mooy boo xasee xam pasem sunna ak i sartam lu ci xët lu mu néew néew rek mu daal di bokk ci pasem bidaa loolu moo gën a gaaw mu daal di xamal nag pasem sunna wali talaaxi sunnati ñeel na pasem sunna shuroot ay sart an takkoona bu nekkee al mutallaqatu ka ñu fase mi man di jigéen joo xam ne taxiidu dana mbërëk wa an laa takkoona ak mu bañ a nekk xaa idan di aji mbërëk wala nu fa saa du caageenu aji amee dana tibasin wa an tàkkoon ak mu nekk fii tuxurin ci ak laab lam ya massa ba laalu ko fii ci moom waaye yu tallix ak mu fase ko fii ci moom waaye datal menn pase pasem suñu ay sartam mooy bu fekkee jigéen joojee dana di gis deret dañuy sart kon yooyu jamono mu bañ a toll ci gis deret ndax jigéen moom bu tolloo gis deret fase ko day araam nga xam ne bu dee ci yoon sax bu dee mu mën a fayli yoon forcé koo ko ci mu fayli ko kon na ngay wax ne pasim sunu daal mooy bala nga koo fase na la wóor ne ci laab la toll muy benn te diirub laab ga jotewoo ca ak moom dara dara muy ñaar te nga fase ko benn pase képp dañ koy def ñaar mbaa ñett bañ caa tegaat meneen pase ba it daje jeex loolu mooy ay sartam tax bu fekkee tàggoo moom doo nga bëgg jël lu xiru ba di ko ëppale benn ndax moom boo ko fasee benn rek te fay yowoo ko ba idda ji jeex jeex na nekkatul sa soxna kon nag sart yaa ngoog na ko fase ci ak laab te laab ga jotiwu ci ak moom benn yoon te fase ko benn dong te bañ caa tegaat beneen pase ba idda ji jeex bu doon koo xam ne daa am bu moom waxtoo ko fasee rek baax na ndax iddaam du yokk du wàññiku mooy rek am doom borom ku ndawee ba ëpp mbaam magi bopp ba du gis deret waxtu woo ko fasee rek baax na ndax moom ñetti weer rek mooy nekk iddaam borom koo xam ne la ko may rek yem ci jotu wala ak moom dara itam waxtu woo ko fasee rek baax na ndax moom du iddaw sax far wa man xaala ku wax li saw joti yi ñeel soxnaam ne ko anti yow taarixul aji fese nga fahiya moom loolu waaxidat benn lañ koy jàppe xataa yalu ba te mu yéenee ak sa lopp min zalika ci loolee soo nee sa soxna fase naa la rek yem ci néew ko benn mbaa ñaar mbaa ñett dañ lay laaj ba xam loo jublu ci fase naa la ji boo nee benn muy benn boo nee ñaar muy ñaar boo nee ñett muy ñett bu dee ci yoonu maal yi moom boo nee ñett itam muy ñett boo nee ñaar muy ñaar wal xulxu summi ko talxatun menn pase lay doon ba ilut mu di aji facc mooy mu amut fay li laara ci xata mu deetug fay li fiihaa muy nekk ca moom mi ngi noonu wa in lam yusammi ak doon ci tudd talaa xam tase isa an tat fa ndeem jox na ko sey an dara yàq la uhaa loolu dana ko summee bi ci moom min nafsihi ci boppam summi ko mooy bu jigéen ji doyalee ci sëy ba bëggatuta àndul jëkkëram mooy bëtigu nag fay alal jëkkëram loolu mooy summi ko su ko see joxe alal nag jëkkër ji nangu te xam ne moom bëgg baatama tax mu jox ko alal ji teewu ko nangu moom jëkkër ji dañuy jàpp ne kon fase na soxnaam menn pase moo xam ne fay li mënatu caa topp bu idda ji jeexee nag te njuboo mën na ko takkaat takk bu yees waaye moom bi xasee summikoo nii mu jox ko alal moom bu ko waxoon ne ko fase naa li dam du tee yoon jàpp ne fase na ko menn pase moo xam ne fay li mënu caa am ndax bu ca fay li mën a am kon mu fay alalam ba noppi ñàkk alalam wa arkaanu talaaxi ponki pase arbaxatu ñeent la al awalu bu njëkk bi mooqixu talaaxi mooy aji dal pase ma aji tàbbal pase ma mooy aji dalal pase ma nee na pase am na ñeenti ponk bi ci njëkk mooy ka nga xam ne mooy def pase ma wa shartuhu sartam ba ay yakkoona mooy mu nekk musliman di ab julit mu kàllafan tey mu kàllaf falaayan xaqidu du fasu talaaxul kaafiri pasem yéefar wala sab yi du caageenu gone wala man du caageenu koo xam ne zaala dañ na muy rëcc na xaqaluko xelam ma bi junoo ci ak ndof aw ixmaayin wala aqam aw naxwi zalika wala lu mel ne loolee nee na kii fase dañuy sart mu julit bu dee yéefar bu fasee duñ ko faale te itam mu nekk mukallaf fa ñu nekk gone gone bu fasee deesu ko faale te itam mu ànd ak sagoom bañ a dof ba muy fase bañ a xam mbaa lu ko nuru fekk ne boobu dafa dof tax mu tudd baati fase wala mu doon xam wala mu sibru bay wax rek wax wax daal di wax baati fase yooyu yëpp di tax fase ma dal was sakraan aji màndi nga xam ne ci sàngara aw nadiif bi wala am xonj al mashhur la ñu siiwal nouveuse talaaq yi moo di wéyuk paseem ma xaaluhu wax na ko fi jawaahir ci jawaahir wa zaahiruhu te saahir si waxam ja mayyasa moo di kat moo xam xàmmee na asamaan suuf am laa wala xàmmewul dara ndax màndi ga ku màndee ci lu araam moom niki sàngara mbaa njambaan loo xam ne dem na ba am dëgëra yi màndal wax ji gën a wóor mooy bu fasee rek pase ma dal ndax la ko tax a màndi moo ko teg boppam luy seet nag ba xam daa màndi ba xàmmeetul dara dara niki asamaan suuf daa dara wala aggu foofu moom daal moom màndee ci lu araam rek moom bu fasee pase ma dal waxtara sa wattandikoo na bi xaw yi ci waxam ji bi xam rin aw nabiisin xàmmaa ci boo xam ne law shariba doon te naanoon na labanaan am soow aw akkala wala mu lekk taxaaman aw ñam xalaal wuri aji lew aw dawaan wala saafara fa sakkirite mu màndi min fu ci moom fa innahu naka moom in tallaxandeem fase na fii tilkal xaalati ci moom la mbir laayu samahu du ko war talaaxuñ pase ijmaaxan ci rajog fóore li tax mu ne ku màndee sàngara mbaa njambaan lu mën a màndal dalaa bëgg a xamal ne la su màndee woon loo xam ne nii lu dagan la nit ki am soow rek la naan daal di màndi mbaa aw ñam wum lekk rek daal di màndi fekk ñam bu leew la wu dagan la wala garab gum naan rek far màndee ca kooku moom bu fasee itam du tax pase ma dal ak taani ñaareel bi almaxal lu mooy bërëb ba maanaam bu ñu fasee ana fan la pase may dal waxoo moom azawjatu mooy soxna sa wa shartu xoote sartam ba milku zawji mooy moomu jëkkër ja xismatal marati duumuk sëy bu jigéen ja xabla talaaxi ci njëkk pase ga nee na fa fase may dal mooy soxna waaye day fekk nag kanu fase doon soxnaam waaye ndegam moomugul boomuk sëyam mënu koo fase balaa góor a mën a fase kenn rek fekk mu moom boomuk sëyam teewu nag liy wax aj pase ci bu mal takkee nga fase bari ne àtteeloo daañu ko leeral ci téere ci des ak taalisu ñetteel bi alxasdu mooy jubloo fase faman sabaxa ku rëcc lisaanu ko làmmiñam wa ila talaaxi jëm ci pase lam yaqax du dal xaali yi war ko talaaxun pase wala yaqaxu tey du dal mooy du tàbbi talaaxul mukrahi fasem ku ñu forcé ñetteel bi nee na mooy ba mu tudd baati fase ya mu jublu ko ca nga xam ne moo ko tey waaye bu fekkee làmmiñam moo rëcc rek mu tudd fase waaye jubluwutoon wax baati fase ya su boobaa duñ jàpp ne fase na buñ ko forcé woon ba wax ne fase naa itam waaye gis nga ko bi ci coobareem niki ñu ne ko boo fasewut ma rey la mbaa mu tëj la kaso mbaa mu dagg sab cër mbaa mu mbéj la ci kanam mbooloo mi te fekk kooku di borom bañum rus yooyu yëpp bu ko taxee fase itam du tax fase ma dal dara du ko ci war arraajihu ñeenteel bi allafzu mooy baat ba aw maa wala la nga xam ne yàqoo bu gën a taxaw maqaamahoo ci taxawaayam ne li fi nga xam ne ci jëf ñeenteel bi nag mooy maanaam ponk pase yi booboo ci mujj mooy baat ba mu wax ba nga xam ne fase na mbaa lam def mu wecc wax mooy waxut waaye jëf na jëf yoo xam ne wecc na wax ñu xamee ca ne moom mi daa fase daañu ko leeral moom it amma lafzu daal baat ba fayan xasimu dana séddalikoo ilaa sarihin jëm ci aji wóor muy xappati wa kinaayit aku dàkkintal wa maa xadaahuma ak lu bokkutoo ñoom ñaar baat yi nga xam ne moom la ñuy wax ngir fase dañ koy def ñetti xaaj baat boo xam ne ak xappati la ci fase ak baat boo xam ne dàkkintal la ci fase ak loo xam ne du xappati du dàkkintal fa sarihu aji wér jë muy aji xappati jë maa mooy la nga xam ne fii nekk na ci moom law su talaaxi baatu talaax xalaa ay weccim ci bu mu ci anam kaana la ca amee mais kaana la nekk mis an yaqoo la kenn bu waxee ne ko anti yow taalixun aji fase nga awala mu nekk anti yow mutallaxatun ku ñu fase nga tayul sama dana war bi haza ci lii ak talaaxu tase ma wala yaftaqiru te du aajowoo illaa niyat jëm ci yéene nee na saa yu ne ko fase naa la rek xam ne bu dee ci arab andi na baatu paa ak laam ak xaaf lu bokk ci matière tàllaxa fase na daal moom bu indee lu ca bokk rek bu dee ci wolof mën nga ne bu tuddee baatu fase naa la ak nu mu ko tuddee rek loolu baatu fase la boo xam ne ak xëppati la ca ak wóorul la ca fase képp képp lañ ko mën a jàppee léegi bu nee ko anti taalixun wala anti mutallaxatun wala bu dee wolof mu ne ko fase naa la wala mu ne ko demal fase nga lu mel noonu faaw pase am na bu ne jubluwul ci woon tam du tey ñu ne ko pase moom am na wa mutlaquha lu ñu boyalam waahidatun benn lay doon illaa an yan ween dara bu dafa yéene ak sar lu ko ëpp su ne ko nag fase naa la rek yem ci ñooñu benn mbaa ñaar mbaa ñett dañu xam ne benn moom am na daal di koy laaj nag ba xam luy yéeneem bu dee benn laa yéene woon ñu ne ko benn la bu dee ñaar ñu ne ko ñaar la bu dee ñett ñu ne ko ñett la wal kinaayatu dàkkental ba qismaani ñaari xaaj la zahiratun dàkkental bi aji fés wa muxtamilatun ak bi aj jamtalu leneen baat yi nga xam ne dàkkental la ci fase nga xam ne nekkul xëppati ci fase waaye dàkkental la ca ñaari xaaj la am na ci dàkkental woo xam ne dafa fés ci fase nga xam ne moom rek lañ koy jàppee ak nag dàkkental boo xam ne jamtalu na pase jamtalu na leneen lu bokkut ak pase fa zahiratu aji feeñ ja bis lu xawlika mooy kem sa wax ja ne ko anti yow xaliyatun aji wéet nga ci jëkkër wa bariyatun ak aji set nga ci jëkkër nee na baat yi nga xam ne ñoom miinoon nañ ko foofa ñu koy dàkkentale fase ñaari baat ñi mu wax ca la bokk anti xaliyatun ak anti bariyatun dañuy seet nag ñenn ñu nekk rek lañ meen ca béréb boobu rek te leen di àtte bu dee fii ci wolof yi dañuy seet baat yi ñu mën a waxee ci fase rek ñu àtte leen ca noonu wax yow moom nag kas sarihi mi ngi mel ni aji wóor ja fii ànd na ci naka moom laa tuqbalu deful nangu daawaahu wooteem nga fii xëyri talaaxi ci lu dul pase dàkkantal bu fës yi moom moom ba nga xàppatee ci digg wa jaar ci baatu fase ñoo yemoo dong ñoo yemoo ci kaw boo ne jubluwuma ci pase itam dañuy jàpp ne fase rek nga def ni ki bu dee ci wolof may naa la sabaat dàkkantal wuñ miin la ci fase boo nekk may naa la sabaat moom fase képp lañ ko mën a jàppee boo ko bëggee firee neneen kenn du ko nangu wal muxtamilatu aji jamtalu ja mis lu idhabi mooy lu mel ne idhabi demal wan sori fii ak in sori fii walbatigul ba tey mooy demal rek benn lañ fatuqubal def na nangu daa waa wooteem nga fii na fii ci dàq pase ma waxdat yi ak limam ba tey sa daxaande woote na ne ànd na naka moom araad namoon na ak talaaxa pase fal mashhur la ñu siiwal mooy àndoo naka moom yekkoon dana nekk talaaxan di am fase leen dàkkantal yi nga xam ne jamtalu na fase jamtalu na leneen nga xam nga boo ne ko idhab yi demal rek mbaa insarif yi mën naa am demal wacc naa la fase naa la mën naa am nga jug demal baa seet say mbir ndax yow daal sa mbir jaaxal na ma léegi kon xam nga baat yooyu jamtalu na fase jamtalu na lu bokkut ak fase moom nag nee na am na yaatal guñ ca def boo ne jubluwuma ci fase ñu ne wax nga dëgg jubluwoo ko ci boo ne fase laa jublu ñu ne la waaw ñaata nga jublu woon lim boo wax rek ñu nangu ko boo ne bàyyi wax loolu kat benn fase laa jublu woon ñu ne waaw baax na boo ne ñaar ñu ne baax na boo ne ñett it ñu àtte ko ñett kon baat yi mel nii moom boo ci namee fase rek muy fase fekkee nee nga jubluwoo ko ci itam ñu ne baax na kon du fase rek wa am maamaan daal la nga xam ne yaqumu dana taxaw maqaamal lafzi taxawaayu baat ba fa anwaahun ay xeet la min ha bokk na ca al ishaaratu junj ba al mufhimatu bay aji xamle li nga xam ne nag moom du wax ci làmmiñ waaye daa wecc wax ci làmmiñ pese mooy lu mel ni junj junj baa liyaar xam nga bu dee ak lu liyaar képp la man bu liyaaree ba ñu xam ne moom daa fase rek jàpp ne kon fase na moo tax mën naa wax yow moom junj boobu moo waxta ba aratul lu ñu xalam la minal axrasi ci aji lu fi talaax ja pase na ak lu nga xam ne mënta wax moom bu fekkee dafa liyaar ba ñu xam ne daa jubloo fase rek liyaar boobu moo wecci waxan ci làmmiñam bu dee keneen ba tey noonu la doonte ku mën a wax la it bu junjee ba nga xam ne li mu junj moom passé la rek ñu jàppe ko fase wa min ha bokk na ca kitaabatu talaaxi bind passé ma min al qaadiri tukkee ci ajaatan àla nusxi ci wax mooy ci tudd fa in kataba ndeem bind na al kitaaba bind ma wala nga ne bataaxal ba bi talaaxi ci passé waxu te fekk na moom xaasimun aju dogu la xala talaaxi ci passé waqaxa kon dal xaale ci kawam maa la nga xam ne katabahu bind na ko nee na bokk na ci li wecc wax ci sa làmmiñ pase ma nga bind ko dégam ki mën a wax sax su bàyyi wax ji bind pase ma ñu jàpp ne fase na kon xam nga ne ku mënta wax moom ba bindee waxaale wuñ ko moom it xam nga ne kon fase na soo bindee nag baati fase yi te bañ ko bind booba fekk na nga boogu ci ne tay fase saa soxna kooku moom nee na passé bi dal na doon sax jot lioo bataaxel ba sa soxna waxoo ko kenn itam bi ko xasee bind te dewu ci fase rek passé dal nay am moom loolu lu ma taxam la wa in katabahu ndéem bind na ko xayra xaasimin bir moom du aju dogu bala xoo kon ñel na ko radduhu ak delloom maalam yow bu lox li fekk jotut almarata jigéen ja fayal sa buxoo tem koy war bu fekkee ba ngay bind baati passé bëggu woon ci daay fase da nga ne woon daal daa koy bind soo nappee diisoo ci ak saa xarit wala saa waajur mbaa diw ba xam daal danaa ko wéyalam déet kon bëgguwoo ci woon loolu moom kon li fekk jigéen jotu ci rek mën nga caa génn dal ci gannaaw waaye nag boo ko bindoon teg fee far jigéen ci ñëw yem si jàng koy du tee fase ma am na boo si àgg ci jigéen te rek moom pase daal di am waaye bu fekkee àggul ci moom rek moom pase amut wala xaqada doonte fasoon na ak talaaxa pase ma bi xal bi ci xolam jaasiman mbir muy aju dogu ni mu xawee taaraab doon ci lu deng dengi fa fi wuqooxi talaax yi nekk na ci dalu pase ma xale yi ci kawam bi mu jar di zalika ci lu ñu raflee li loolee mooy ci loolee kese rek riwaayataani ñaari nettali su dogoo ci fase soxnaam ci xolam bu wér a wér wax itam baati fase yi ci xelam bu wér a wér waaye nag taxul mu wax ko ci làmmiñam taxul mu bind ko ndax kon dana tax soxnaam fase wala soxnaam du fase am na ñaari nettali wala yajuusu du dagan an yatazawaja bu takkee arrajulu góor imraatan jigéen li yuxillahaa ngir mu daganal ko li ma ñeel ga nga xam ne tallaqahaa fase woon na ko salaasa ñett wala yuxilluhaa te du ko daganal zalika loolee wa yuf saxute def na ko firi way def na ko tebbi xadul binaa yi ci njëkk wéet ga wa baadahu ak ci gannaawam bu fekkee daa am ko fase soxnaam ñetti fase yoon ne ko bala nga ko mën a takkaat jëkkër dafay jaar dana araam na yow nga dem bëgg a takk jigéen joojee ngir rek boo ko takkee bàyyi ko mën a dellu ca kookee ko njëkkoon yor kon araam na ngay takk jigéen takk goo xam jubluwoo ci lu may boo ko takkee bàyyi ko nag mën a delluwaat ci ki ko njëkkoon a fase ñetti fase boo ko defee def nga lu araam te bu woon xasee xam loolu tax nga def ko jeex na du tax ñu mën a bàyyi jigéen ja mu dellu ja kookee ko waroon déedéet bu yoon yëgee ne takk nga takk ba ko daganalal ki ko njëkk a ñëw rek la faaw yoon teg bi sëy boobee moo xam jot ngaa wéet ak moom moo xam jotewu leen dara wa in fu si xam dem firéef na ko ba adahoo ci gannaaw wéet ga fa laxaa kon ñeel na jigéen ja al musamma can nga ñu tudd bu fekkee nag ba ñuy teg bu sëy ba daa fekk jote am ba noppi nag kon taawuñ jox jigéen ja can nga ñu waxante woon su fekkee waxante woon genn can nag kon jox ko canat moroomam lu tolloo lañu jox ay moroomam wa man tallaxa ku fase imraatahoo jigéenam salaasam ñetti pase lam taxil la kon du daganati la xooy ñel ko bi milkin ci sababu moomeel wala nikaaxin du caageenu takk xataa tankixa ba te mu séyeeg zawjan jëkkër xëyraxoo ju bokkut ak moom daa wax ne sa soxna boo ko xasee fase ñetti fase faaw bala nga ko mën a takkaat dafa amaat beneen jëkkër bu jëkkër joojee joteeg moom ba bàyyi ko nag ba idda ji jeex nga doon koo mën a takkaat li tax mu ne nag ci sabab moomeel mbaa takk mooy yooyu jamono jaam dafa amoon nga xam ne kon yooyu jamono boo yoroon sa soxna muy jaam nga wëlbatiku fase ko ñetti fase da lay wax ne la li mu nekk nekk jaam boo ko jëndaatoon it moom ko rek ngay mën waaye doo ko mën a soxna woo faaw rek bala moo dagan ceew ci nga joteeg moom ci moom goo ko moom mbaa takk goo ko takk faaw jëkkër dafiy jaar rek ba joteeg moom ba tàggoog moom jëkk faslun li ab dog la xaala wax na fi risaalati ci risaala ba ne wala